bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waa min xaaji sunnata nabawiya 1 2 ba 3 ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal tawfiq fi dunia wal axira képp ku numéro nekk ci kër gi rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di jéggalu bu baax a baax gëj ñëw ci kër gi ay dog-dogu àdduna rek la woon mais alhamdulillah macha allah kon tay tam dañuy ñëwaat suñu émission astuce ak beauté demb lañ ko waroon def mais guddi taxoon dañoo guddé woon kon ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar sha allah alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk ñu ngi leen nuyu di leen ziar eh, di ñaanal suñu borom xam-xam yi nekk ci kër gi yalla na borom subhanahu wa taala fay ci drus yi am solo yi fi wacc di nuyu samay xabibaat di leen ñaanal jàmm ju bari tey incha allah ñu ñëwaat ci suñu émission astuce et beauté ñu fas yéene waxtaanee euh, bienfait yi nga xam ne moo nekk ci graine de ndax ku ne xam na ni li nga xam ne moom mooy xaal mooy xaal bu xonq bi nii macha allah dafa bëri ay ferñeent ci nekk mais tey incha allah dañu fas yéene waxtaanee li nga xam ne moom mooy xoox yi. dinañ si indi incha allah euh, juróom-ñaari ngëneel yi nga xam ne dafa nekk ci xooxu papaaya ak li nga xam ne da koy def ci li nga xam ne moom mooy wér yaram doomu aadama ndax en général ñu si bëri suñuy lekk xoox papaaya dañ koy génne daal di koy sànni néew na ci ñi nga xamante ne dañ koy yëyaale euh, li ci ëpp dañuy sànni xoox yi te xoox yooyu noonu dafa am solo lool xaal lépp am solo muy xoox bi muy ñam bi si boppam ba ci xollit bi nga xam ne sax dañ koy sànni am na li nga xam ne moom mooy ay njëriñ yoo xam ne moom moo ci nekk macha allah kon wabillahi tawfiq tey moom lañ fas yéene wax waxtaane ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu yombal ñu ba lépp loo xam ne rek ñu ngi ko ci wax mu nekk loo xam ne jëriñ lay doon ci li nga xam ne moom mooy jullit yi suñ ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy njëriñ yi nga xam ne moo nekk ci xooxu pastèque mooy xooxu xaal euh, mu bëri njëriñ lool sax macha allah ndax li nga xam ne moom mooy xooxu euh, pastèque yi mooy xaal bi dafa am li nga xam ne mooy ay protéines kon dafa am solo ci li nga xamante moom mooy wàllu euh, chevelure nit ki mooy wàlla maanaam wàllu karaw pour li nga xam ne mooy bien bienfait pour la santé des cheveux li nga xam ne mooy graine de papaye yi de subhanallah graine pastèque yi da cee baax lool sax macha allah euh, ndax dafa riche en fer ndax bépp aliment boo xam ne rek wala bépp euh, fruit yi wala lu mënti doon loo xam ne dafa am fer dafay baax ci li nga xam ne mooy croissance bi nga xam ne moom mooy karaw li nga xam ne mooy tax nit ki karaw gi di mën a gudd karaw gi di bañ a damm ak yu mel noonu ndax fer bi nga xam ne moo ci nekk moom mooy favoriser moom mooy tax ba li nga xam ne moom mooy karaw gi dafay mën a sëkk sëkk gu normal ndax dafa riche tam ci li nga xam ne mooy en magnésium dafa riche en magnésium moom mooy tax ba karaw gi du damm mooy tax ba karaw gi dëgër li nga xam ne moom mooy xooxu euh, pastèque yi ndax moom xooxu pastèque yi nii surtout bu fekkee da nga kaa torréfier maanaam boo demee ba mel ni ku ko saaf dafay am li nga xam ne moom mooy cuivre ndax loolu dafa bokk ci li nga xam ne dafay tax production bi nga xam ne mooy euh, mélanine bi nga xam ne moom mooy tax ba nit ki karawam du damm mooy tax ba karaw gi du ruus donc bu fekkee xooxu xaal yi da ka kaa maanaam da nga ko mel ni ku ko saaf wala nga jël ko dugal ko ci four tamit mel ni lu ko saaf grillé noonu kon loolu dafa am day am li nga xam ne moom mooy cuivre cuivre boobu dañ koy soxla ci li nga xam ne mooy mélanine mélanine boobu noonu moom mooy tax ba karaw gi du damm. suñ ñëwee ci deuxième point bi tamit dafa baax xooxu xaal pour éclat de la peau ndax jigéen ñi moom foo leen fekk rek ñu ngi lijjante kanam gu nes nes yi peau bu am éclat ak yooyu noonu kon nañ daw gaaw ci li nga xam ne moom mooy xooxu euh, xaal mooy xaal bu pastèque mooy bu rouge bi ndax euh, lu tax muy am ek muy defar li nga xam ne moom mooy peau bi éclat de la peau parce que dafa riche en acide en acide gras léegi acide gras yooyu nekk ci li nga xam ne mooy xooxu papaye bi moom mooy waral éclat de la peau moom mooy tax ba euh, nit ki daal deram dafay nes nesi macha allah dina liis day am peau bu seen tamit day am li nga xam ne mooy euh, der bu set ndax dafa am li nga xamante ni moom mooy ay acide gras ay acide euh, oléique lay am li nga xam ne yooyu mooy tax ba nit ki yaramam dafay liis daf koy hydraté tamit dafay hydraté maanaam daf koy nooyal même mën nañ utiliser tam li nga xam ne moom mooy huile euh, graine de pastèque yi tamit moom itamit tamit noonu la baaxee tamit ci li nga xamante ne mooy traitement pour par exemple bu fekkee nit ki dafa am ay acné kanam bi dafay faral di am ay acné di am ay peau grasse ak yooyu noonu donc mën na utiliser huile graine de papaye bi ndax huile bi tamit noonu la riche pour dindi li nga xamante ne moom mooy ay rid day dindi li nga xam ne mooy ay rides maanaam bu fekke nit ki kanam gi dafay ras ndax bu fekke nit ki mom doomu adama bo demee ba jël ben âge bi euh, kanam gi ni mu meloon dootu ko mel ndax lé da nga gis ñu bëri sax dañuy daw ci yenn produit euh, pour tamit mëna défarat defaraat seen po. seen peau euh, dañuy am ay rides kanam kanam gi mel luy ras ak yoyu donc huile de graine de pastèque bi baax na ci trop fay dindi li nga xamne mom moy ay ride day calmer li nga imperfection yi nga xamne mom moy nek tamit ci kanam nit ki. Euh, graine de pastèque yi ba tey dafay augmenter dafay yokk li nga xamante ne mooy yëg-yëg ci wàllu néegu sëy ñu jéggalu nag ci kàddu bi euh, jàngale rek liñ si jublu dafay yokk li nga xamante ne maanaam mooy yëg-yëg ci wàllu sëy ndax boo xoolee li nga xam ne pastèque sax mooy xaal bi am na ñu naan loolu mooy viagra naturel ndax tamit bëri na ci ñi nga xamante ne dañuy dem di ut ay viagra pour di mën a yokkaat seen kàttan ak yooyu parce que :fra nit ki tam yenn saa yi di nga tombé :fra benn di nga nekk benn moment boo xamante ne dangay ngay xaw a mel ni ko am paan soit mën na nekk stress :fra moo koy waral wala genre :fra yu mel noonu donc de defar li nga xam ne mooy jus :fra %e euh, pastèque bi mën nga ko boole ak jinjeer ak limon ak naana kon loolu baax na ci li nga xam ne moom mooy panne :fra yooyu noonu ba pare li nga xam ne moom mooy xoox yi tamit dafay yokk li nga xam ne mooy yëg-yëg parce que dafa am li nga xamante dañ koy tuddee sax li nga xam ne mooy aphrodisiaque naturel kon li nga xam ne moom mooy xoox yi dafa bëri lool li nga xam ne mooy acide aminé donc acide aminé yooyu nga xam ne moom moo ci nekk comme li nga xam ne mooy l'arginine ah comme li nga xam ne mooy lysine yooyu yëpp mooy acide yi nga xamante ne mooy glutamique yooyu dafa bokk ci yi nga xam ne dafay dimbali nit ki pour stimuler li nga xam ne mooy désir sexuel bi boobu noonu mooy maanaam yëg-yëg boobu nga xam ne nit ki da koy soxla ci néegu sayam kon acide yi nga xam ne moo ci nekk da koy dimbali bu baax a baax buñ ñëwee ci quatrième point bi tamit li nga xam ne mooy xooxu pastèque yi baax na lool ci li nga xam ne moom mooy jabet xoox yi dañoo efficace lool sax pour wàccee li nga xamante ne mooy taux de sucre bi nga nekk xam ne day nekk ci deret bi baax na tamit pour euh, traiter li nga xam ne jabet de type de type 2 baax na si kon boobaa fekkee nit ki dafa am li nga xam ne mooy jabet taux de sucre si si deret bi day naan li nga xam ne moom mooy tee tee boo xam ne graine pastèque yi lañ koy defaree ndax dafa am li nga xam ne mooy magnésium magnésium boobu noonu euh, dafa baax trop pour réguler li nga xam ne mooy euh, métabolisme bi nga xam ne moo nekk ci euh, glucé kii bi glucides yi kon dafa am impact boo xam ne daf koy def direct ci li nga xam ne moom mooy wàllu glycémie bi kon dafay naan li nga xam ne te graine de pastèque kon pastèque mi ngi noonu dafa am solo lool sax graine yi dañ koy jël euh, mel ni ku koy saaf daal di koy def poudre après di ko naan sous forme de thé dafay wàccee li nga xam ne moom mooy taux de sucre mais tamit bu fekkee nit ki da koy def tamit dafay dem di controler parce que dañu la ne lii koy wàcce rek nga naan ko rek daal di toog déedéet kon jabet dañuy dem di ko contrôler te tamit lépp loo xamante ne lu yéegal suukar tamit daal di koy moytu li nga xam ne mooy xooxaali bu ñëwee ci cinquième point bi dafa am ay bienfaits yu bari ay njëriñ yi ci nekk ci wàllu nutritionnel maanaam dafa riche en protéines am na li nga xam ne mooy vitamine am na ay minéraux comme li nga xam ne mooy fer magnésium sodium zinc cuivre am na magnésium tamit dafa am ay acides aminés yu bari yoo xam ne moom moo ci nekk kon lolo tax mu bax lol ci li nga xamantene mom moy walu euh, nutrition kon yi yëpp moom nit ki da koy soxla ci li nga xam mom moy walu wergu yaram bu ñëwee ci 6e point bi tamit mu nek lo xam ne xali mu bax lol ci li nga xamantene moy mooy problème xol moy bon pour le cœur ndax dafa am ben présence bo xam moy magnésium bobu ci nek ci li nga xam mom moy euh, pastèque bi wala xooxu pastèque bi dafay dimbale nit ki pour xol bi mu mën a fonctionner bu baax ndax dafay dafay euh, dafay régler li nga xamante ne mooy problème hypertension artérielle bu fekkee nit ki dafay utiliser li nga xam ne moom mooy xooxu xaal dafa am bénéfice bu baax a baax ci li nga xam ne mooy fonction cardiaque yi <coughs> ndax dafa am ay acide gras am li nga xam ne mooy oméga 6 dafay Euh, traité li nga xamante ni pression artérielle kon xooxu xal tamit non la baxé lool ci nga xamné moy problème cœur bon fonctionnement du cœur donc nañu utiliser tam li nga xamné moy euh xooxu xali le septième point bi xox yi dafa bax lool ci li nga xamné moy système nerveux en général bo démé par exemple dëkk yu melni Mauritanie. da ngay gis lu ci bari ci ay grain dañ koy jaay xooxu xaali comme xooxu naajo yi da nga ko gis lu bëri sax yoo xam ne dañ koy weer après di ko jaay kon dafa am njëriñ lool ci li nga xam ne moom mooy euh, santé nit ki te mu nekk loo xam ne lu naturel la moo tax dafa baax lool ci li nga xam ne moom mooy système nerveux ndax bari na ay vitamines yi nga xam ne moom moo ci nekk lu mel ni ñasin <clears throat> wala falaat wala camine vitamine b mu nekk yoo xam ne yu ama am solo la pour maintien du système nerveux dafay maintenir li nga xam ne mooy système nerveux nit ki euh, système digestif tamit da see baax mooy par exemple li nga xam ne moom mooy lépp lu jëm ci wàllu li nekk ci biir ay ñoom estomac ak yooyu noonu parce que dafa baax ci li nga xam ne mooy système digestif bu fekkee nit ki dafay am ay problème ballonnement ay reflux gastrique genre yu mel noonu li nga xamante ne moom mooy xooxu xaal yi daf ci baax trop kon moom tamit mu baax ci li nga xamante ne mooy beauté de la peau nit ki bu fekkee dafa am tamit li nga xam ne moom mooy ay problème de la peau mën na di utiliser li nga xam ne moom mooy xooxu xaal yi kon mu nekk yoo xamante ne daal yu ama am njëriñ la ci li nga xam ne moom mooy suñu alimentation euh, xoox yi mën nañ ko di ko boole ak par exemple booy defar ay vinaigrette mën nga jël xoox yi tamit def ko ci wala bu fekkee da ngay defar say gato mën nga ci def xoox yi tamit wala mën nga koy mixer tamit di ko boole ak li nga xam ne moom mooy xaal bi def ko jus booy def jus au lieu nga génnee xoox yi mais da koy mixer waale ak euh, xaal bi soo paree daal di koy segg bu ko defee nga am bienfait yi nga xam ne moom moo nekk ci xaal bi pour préparation li nga xam ne moom mooy xooxu xaal yi soo ko amee raxas ko ba mu set daal di koy bàyyi ba mu siit ba ndox mi yëpp dañ nga daal di koy weer mais nga bañ ko weer si naaj nag moo gën léegi su la neexee mën nga ko jël nag boole ko li nga xam ne ak xorom daal di koy mixé pour li nga xam ne da nga koy assaisonné say salaat ak genre yu mel noonu sooy defar vinaigrette nga def ci pour nga am bien bienfait yi nga xam ne moom moo ci nekk. beneen bi tamit <coughs> mën nga ko saaf ni nga koy saafee da ngay jël pool boo xam ne euh, du kole fekk raxas nga grain yi ba mu set daal di koy fomp ba mu wow nga daal di ko ci def di saaf comme ni ñuy saafee café rek comme ni ngay saafee saafee café saaf bii nii. soo ko saasee ba mu dooree noonu rek après nga daal di koy génne mën nga di ko yëy tamit comme ni ñu yëyee gerte caaf ak yooyu noonu wala tam mën nga ko jël di ko boole say salade wala sax même bu fekkee da ngay togg par exemple sa ñànkatang ak yooyu su la neexee mën nga si def li nga xam ne moom mooy grain euh, papaye grain xaal yi maa ngi jéggalu wala tam mën nga ko def tamit comme ni ñu ko waxee sooy defar say say pâtisserie lu mel ni ay biscuit wala ngay defar say gâteau wala ngay defar lépp loo xam ne sax lu sucré la euh, mën nga ci def li nga xam ne moom mooy xoox yi comme ni ma ko waxee sànq tamit mën nga ko jël mixé ko boole ko ak xaal bi pour nga am bienfait yi nga xam ne moom moo ci nekk léegi pour defar li nga xam ne mooy thé bi thé grain papaye bi léegi li ngay soxla di nga soxla ñeenti kuddu yu mag ci grain xaal nga soxla juróom-ñetti kaasu ndox vert léegi kii bi xoox yi soit nga jël sa mixeur nga mixé ko wala soo ko amul boo ko weeree ba wow nga dëbb ko ci gën soo ko dëbbee nga am si ñeenti kuddu yu mag après nga am juróom-ñett verre léegi nga daal di jël euh, juróom-ñetti kaas yooyu da koy baxal soo baxalee ndox mi ba mu bax ba bax après nga jël ko nag sotti ko ci ñeenti kuddu xaal bu xoox xaal yi nga daal di koy ub soo ko ubbee nga bàyyi ko 15 à 10 minutes bàyyi ba nga daal di koy segg soo ko seggee nag moom ngay jël nag di ko def sa tee mën nga di ci naan matin midi soir mën na la fajal jàngoro yu bari kon euh, pour euh, produit de beauté mën nañ am ay gommage yoo xam ne yu naturel la mën nañ ko def à base de euh, pastèque léegi li ngay def mooy da ngay soxla xaal kii bi xaal bi ci boppam soo ci amee benn tranche nga am suukar nga am tamit huile de pépin de pastèque bi soo ko amul nga remplacer ko ak huile de coco wala huile de douce léegi da ngay mixer euh, xaal bi soo ko mixer après nga boole ko ak sucre bi daal ci def huile de pépin de pastèque bi soo ko amul nga daal ci def euh, huile de douce wala huile d'olive baax na trop ci ñi nga xam ne dañoo am problème de peau te gommage bi mën nañ ko gof gommage du corps yaram bi te gommage tamit buñ fàtte ne nekkul nekk jigéen rek moom moo war a gome même góor sax war na di gommage parce que boo xoolee nit ki soo génnee naaj bi ak genre yu mel noonu da ngay dem ba mujj gi sax kanam gi dafay am ay impureté yu ci nekk kon soxna yi nag dee leen gommage seeni borom kër macha allah mu nekk gommage boo xam ne gommage bu duu la te dafay defar li nga xam ne moom mooy peau li nga xam ne moom mooy pastèque bi ba tey mën nañ ci defar tamit ay lotion lotion yoo xam ne moom la ñuy jël pour nettoyer kanam li ngay soxla mooy da ngay mixé xaal bi daal di segg ba am ndox mi soo amee ndox mi nga def ci benn kuddu bu ndaw euh, limon nga daal ci def benn huile soit huile douce la bu huile pastèque nga am tam baax na wala huile de coco nga mélanger ba mu baax après loolu da nga koy jël moom ngay def lotion balaa ngay tëdd subhanallah nga jël ko nettoyer ko sa kanam ba set macha allah kon sa kanam gi da ngay am peau bu liis macha allah euh, mën nañ ci tamit euh, defal li nga xam ne moom mooy masque ndax boo defee gommage def masque def lotion léegi pour euh, masque bi dangay soxla benn pomme de terre da koy baxal soo ko baxalee après daal nga daal di koy def mel ni purée ba pare nga am sa benn daggu xaal daal di koy mixé mélange kook moom toujours nga def ci benn kuddu bu ndaw limon def ci sa benn huile boo am soit coco la wala amande douce mélangé après léegi soo soo nettoyé sa kanam ba pare nga def sa gommage boo defee gommage da ngay sëlmu après nga daal di jël nag masque bi nag dal di ko ciy diw nga bàyyi ba mu wow bëri na ay njëriñ lool moom ba tey tamit mën nañ ko jël bu fekkee ni ki da am karaw guy ruus a guy damm ak yooyu da ngay jël xaal bi tamit daal di koy mixé soo ko mixé ba nga euh, pressé jël ndox mi ndox mi soo ko jëlee danga koy jël diw ko ci karaw gi yëpp ba mu daj après nga daal di nuggal ndox daal di ci dugal benn serviette weñ ko daal di koy enveloppé karaw gi daal di sol sa bonnet euh, soo ko amul tamit boo ko ci diwee nga daal di jël sa benn mbuus bu baax takk ko après daal di jël benn bone sol ko bàyyi ko ay une heure de temps nga da nga gis karaw gi dafay nes na si ba pare dafay dindi li nga xam ne moom mooy euh, chute des cheveux donc euh, xaal daal léppam daal ay njëriñ la dafa bëri ay ferñeent moom depuis si ñam bi ba ci xollit bi ba ci li nga xam ne moom mooy euh, xoox bi